الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تم mbooloo mi yëpp. na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp. di ko tàmbalee ci sunu sëriñ bi. nee na di ko tàmbalee ci sunu sëriñ bi. di mu yàgg fi lool. nee na te ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér. te ànd li mu yéene liggéey ci yoonu sëriñ bi. nee na li nga yéene liggéey ci yoonu sëriñ bi. yàlla na ko sunu borom kattanal. nee na yàlla na la sunu borom kattanal. ba nga eggale ko ni nga ko bëggee. ba nga defee ko ni nga ko bëggee. ba naalaat yeneen naal. ba naalaat yeneen naal. mu eggaat mu aggaat. ñu ngi ñaan suñu borom yàlla. ñu ngi naan suñu borom yàlla. mu defal ñu kiimtaan ci saw fan. mu defal ñu saw fan mu defal na ci kiimtaan. ñu naan nit naka la fi mën a yàggee nii. ñu naan moom daal Cheikh Bara yàggee nii mu a yàggee noonu. ba noppi nag boole kooku wér. ànd ak xelam. te ànd ak sam xel. ànd ak kattanam. ànd ak kattan boole ci. barke Serigne Touba ci barke Serigne Touba. li nga waxoon nii léegi nii nag yow sëñ moom. nee na li mu waxoon léegi li ma waxoon léegi ci moom. mooy bi man bi yàlla dogalee ñu dem ba ñëw. nee bi yàlla dogalee mu dem ba ñëw. dañ ni balaa ñuy dem fenn dañ ni bala noo dem fenn kat même sëriñ Muntaxa li muy doon doon sëriñ Touba ci kaw ne sëriñ Muntaxa li muy doon doon sëriñ Touba ci kaw suuf yow yaay sunu sëriñ Muntaxa nun daal yowee sëriñ Muntaxa ci nun dun jaari fenn neen dun jaari fenn dun dem ci kenn dun dem ci kenn dun ko yut kenn dun ko yut kenn yow lañ ko yut yow mii lañ ko yut ndax sunu nijaay ja fii la nekkoon ndax nee na sunu nijaay ja sëriñ Adama Fall fii la nekkoon sam fi daara sam fi daara nga ànd feek moom nga ànd feek moom nekk fi nekk fi mu joxoon la léppam mu jëloon léppam joxoon la ko sëñ Abdoul Ahad Baara sëñ Abdoul Ahad Baara moo doonoon buntam ci sëriñ moo doonoon buntam ci sëriñ Touba te ñun nag te moom nag lépp lu nekk ci ñun lépp lu nekk ci moom moo ko def ci ñun sëriñ Adama Fall woo ci def te bi lañ ko defee te ci ëtt bi ko defalee te sunu buntu nee na yow kat yow sunu buntu te la ñuy sagoo nee na yow mii la ñuy sagoo yaakaar naa Abdou Karim jot jombul jottali na la ko nee yaakaar naa ne Abdou Karim jottali na la ko ah, loolee mu la wax nag nee loolee mu la wax day man mi maa ko ko wax moom mi moo ko wax nga xam ne soxna si nga xam ne soxna si soxna maam Jaara ni ko sëñ Mor Ndiaye ni ma ko waxee xaw man damaa yor daara jigéen fële ca Touba. daa yor daara jigéen fële ca bi ñuy def natt bu njëkk bi. ne bi ñuy def natt bu njëkk bi. muy concours bi Ablaye Dia di di natte. muy concours bi sëñ Ablaye Dia di natte. mën naa ko bind fii ci département Tivaouane. ne na ko bind ci département Tivaouane. waaye dama ne naa natt ba xam fu mu tolluwaayam toll. mais dañu naa ko natt ba xam fu mu toll. ndax euh, euh, man al alxuraan ci Sénégal moom. ne manuk alxuraan ci Sénégal moom. Touba ngay dem. Touba ngay dem. natt fa sa bopp bi ñu demee candidat yi bokkoon. juróom-ñaar fukk lañ woon ak ñaar. juróom-ñaar fukk ak ñaar lañu woon. Mouhamed Gaymi jëlun jëloon Arab Arabie Saoudite. ne Mouhamed Gaymi jëlun premier ci Arabie Saoudite. ci la bokkon ci la bokkon soxna ci mo jël premier. soxna ci mo jël premier bobu muy juroom ñaar fukk ak ñaar. muy juroom ñaar fukk ak ñaar. ñu war ci atane ñaar fukk. ñu taal war ci atane ñaar fukk. mo jël premier. ne mo jël la premier. Mouhamed Gueye nek ci kanam. Mouhamed Gueye nekk ci kanam. ñaar fukk yoy ñu dem yóbbu len départemental. mais ñaar fukk yoy yóbbu départemental. ñu war atane tànnaat juroom ñu war atane tànnaat juroom soxna ci jëlat premier. mom mi jël la premier. kon yellona na. ne kon yellona lim jël fele lim jël jël fële. daa fekk ci ni concours. da fekk ni concours. léeg-léeg chance da ci am. léeg-léeg chance da ci am. ak it léeg-léeg ni ni atay di demee. ak ni léeg-léeg atay ni ñi demee. waaye ñi tok ci saal ba. waaye ñi tok sa saal ba. bi mu ba nopi bimu jangé ba nopi xam nañ ni ki ñëw de. xam nañ ni ki ñëw de. ki téwal Sénégal. ki téwal Sénégal. jambar la jambar la. da lool nak te keluar, loolu ci ëtt bi rek la ko jëlee kon sëriñ bi kon sëriñ bi di sëñ mo wax legi li ma la wax legi mako wax mom moko wax ñun dal yaay fi suñu buntu neena yaay suñu buntu fi fii de eh, sëriñ Tuubaa lu ni defit leneen lu ni defit ci lu baax ci lu baax da nga xamni ñi ñu ngi la cay baye na nga xamne baye nan la ci xel xeyna ab daara modul man jamono bu ne nga koy gis xeyna na daara liggéey bi mu liggéey tax jamono bu ne nga di ko gis mënu ko na nga xamni ne na nga xamni fu mu toll fu mu toll yaangi ci suñu xel mais yaangi ci xelam ndax ñun maam rek la ni

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تم